ami incha allah ah, imam ñu mujjee ko ak euh, point bi euh, mujj xam naa ni Modou su fekkee nii euh, sax élément bi jege na ko mën nañu cee mosal as lëf rek pour ñu gën a mën a xam li ñuy waxtaanee ci daal am mbokk mu wax ni daal nangam nangam ci Ousmane Sonko Modou bu dee jàppandi nañu jël si ko dëgg-dëgg ñi la yàlla xam ngeen loolu mag ña bu ñu dellu si waatoon danañ jaaxle ci jamono parce que danañ wax ana Sénégal ban Sénégal léegi ban Sénégal nga attan leen faa teg ca seen place nga xamante ni waxuma la dara waaye seen dàll sax xanaa mënuñoo nga dégg mu waxe noonu réew moo xamante ni Alaaji Maalik Sëriñ Tuubaa xeex nañ ci dëpp xeex diine seeni boot nekk ci boobu voie ñu ngi fexe mbaax googa lu ko yokk yow nga ñëw amoo looy teg lu dul dem seeti un vulgaire violeur vulgaire violeur vulgaire violeur nga teg ko naan ñii moom a gën waaw ku dem voilà naan boo dul gis bay xool des fois bu ma la kiyee rek kii ma boo gën ñuy kii di kii voilà euh, imam mhm. euh, ñoo ngi euh, wax nag comme ni ñu waxoon ci suba rek maanaam mhm. photo bi nii la ko gars yi ci internet bi mhm. te da defe naa ne croix bi sax xëy na dañ cee bëgg a wane seenu mer rek. Mm. waaye croix nit ket du tax. waa maanaam yokkul ci nit jëmm nit ki dara. xam naa kilifa gi ñoo ngi koy jégalu lool di wax ni mm. du solution moo croix photo bi waaye nii lañ jëlee photo bi ci internet bi. Mm-hmm. léegi nag imam mm-hmm. attee njaalo dinañ ci ñëw. waaye d'abord noo jàngatee kilifa gi li mu wax ci Ousmane Sonko ñu doog a ñëw ci attee njaalo. waaw moom day mm. xam naa wax ji li tax du mën a yaatu lu bëri mooy tuddul tur. Mm-hmm. en plus wax ji dafa am fu mu jógee ñëw. waaw muy dafa am ko wax ni. Ousmane Sonko. bakkanam moo ñu gënal bakkanu. Oh, kilifa diine boobu maa ngi ko doon seetaan. waaw bi waxee loolu tamit man jàppoon naa ne benn dof buy wax mooy wax ni waaw waaw jàppoon kii di wax moom. Ah. benn dof la mais man nag dama jàpp ne kooku li mu doon wax. Mhm. amul lien ak Ousmane Sonko. vraiment. la mu doon wax. Mhm. engagé wu ko te yoonam nekku ci. Mhm. jàpp mu ne moom la ko waxal it nag. du porte parole amul luy firndeel ni ci moom la bokk. Mhm. amul luy firndeel moo ko wax loo mën na nekk sax noonam. Mhm. mën na nekk sax noonam boo xam ne. Ah, ah, ah. bëgg koo yàqal mën naa tax mu ñëw ne xaaral ma mm. waxal Sonko loo xam ne. Mm. kilifa yëpp dañuy jóg attaqué ko moom. pourtant saa njoogu gisin bii la am. wallaay mën naa nekk. loolu mm. loolu képp ku xam stratégie guerre. Mm-hmm. dañ koy def mooy da ngay jël ay éléments yóbbu ci sa adversaire mu jël mbubbam. Mm-hmm. di la fa juyeel yow yi nga bëgg mu am fa te nekk fa woon nga di ko fa def. d'accord ah, te fekk ma nga ca waaje yow di la attaqué. fekk yow lay liggéeyal. waaw mais Sonko moom dafa nekk ci benn cadre bu tudd Pastef. Mhm. cadre boobu ña ca bokk ñu ñu xam lañu. Mhm. am na ñu ñu def seeni porte parole ku mel ni El Malick Ndiaye tey bu waxoon wax ju mel noonu. Mhm. wala ay Basirou Diomaye Faye wala ñeneen ñi ni yebal ci plateau yi ñu koy def. Mhm. su boobaa mën nga ni lii mën na engagé Pastef ci kaw kii wax bi muy wax ne wax jii may wax man la engagé bu dee loolu la wax. Mhm. engagé wul parti bi bu dee parti bee ko wax loolu nag waaw moo tax. Euh, pour man bépp wax bu ñu war a attaqué Sonko mooy wax boo xam ne. dañ gis ne parti bi mu communiqué def ko. wala kenn ci porte parole parti bi mu def ko wala Sonko waxal ko boppam. Mhm. ndax benn waay bu taxaw fii ci Facebook am rek di live daal di wax Sonko moo ëpp Pastef. Mhm. cest à li mu représenter ci réew mi. waaw Pastef représenté wul lool. dëgg la jàpp naa ne Pastef benn parti la bu disipliner buy topp ay règle mën nga wax sax ci parti yi gën a discipliné la bokk mais ay sympathisant am nag. Mhm. wala ñi koy supporté ci biti moom. dafa am désordre total. d'accord. mooy ñi ëpp ñi koy xeexal. Mhm. boo seetee doo leen fekk ci biir parti boobu ñu nekk. dëgg la léegi nag su fekkee kii wax mënuñu identifier ni ci parti bi la bokk. Mhm. la muy wax waruñ ko woon a coller ak Ousmane Sonko. vraiment jàpp ne benn waay moo taxaw ci mitunu yeewi askan woowale. Mhm. Khalifa Sall ma nga fa woon. Euh, Déthié Fall a nga fa woon. Ahmed Aidara. Habib Sy ma nga fa woon Ahmed nga fa Barth a nga fa Mimé nga fa xoolal leader politique yépp a nga fa. waa ji kenn xamu ci ban parti la bokk. Mhm. lu tax bi mu waxee loolu ñu jàpp na ci Sonko la bokk. vraiment dëgg la xëy na nag moo tudd na sonkoo bakkanu Sonko moo nu gënal bakkanu xalif généraux yi. Mhm. mais su boobaa moom ngay attaqué moom mi wax loolu mais pas nga attaqué Sonko. wax boobu jàll. atte njaalo bi sëriñ bi ñëwee. Mhm. wax ci moom it wan ko ne ko ki ngay waxal. ab violeur la. sëriñ bi tamit am na code bi mu def mooy tuddul turam. mooy tey boo boo bëggoon a condamné sëriñ bi ci li mu wax nga ne ko ki ngay waxal. Hmm. mu ne la man tudduma turu kenn. ah damaa wax sànni. nan nga def ba xam ne moom laay waxal yaa problème. Hmm. léegi nag jàppoon naa ne tamit waruñu woon a jël photo Sonko ñu kole ko ci. Ah. am na ñun fi ji ñoon viol. waaw ba condamné leen. ay journaliste. ba condamné leen ak doomi journaliste. waaw xëy na nag kooku ampleur boobu amu ko mais. Hmm. le fait que ñu jël photo Sonko taf ko ci dëgg la nag wax ju yegg dafa ko moom dëgg la am ñoo xam ne dañuy xalaat ne wax ji comme kee lay tontu mhm. wax ji kooko ko tax a jóg mais comme tuddul tur d'accord doo ko mën a ne ci côté Sonko léegi nag bu dee atte njaaloo moom waaw atte njaaloo mhm. kudul ki ko def mënu mhm. koo prouver ci kaw suuf képp li lislaam wax ne moom ngay fekk nit njaaloo nga sañ ko wax mooy ñeent ñoo xam ne ñooy bett ñiy njaaloo ñu tëdd pas ñu sangu wala ñu tëju ñoo leen fekk ci biir néeg bi ñu tëju ñeenti nit ñeent ñoo xam ne duñu wax ne dañ leen fekk ci néeg bi duñu wax ne dañoo fekk ñu sàngu foog nga fekk leen ñu sàgganu mhm. nga gis ñuy sëy nii mu leen la awra ak awra mhm. parce que ñoom ñaar mën nañoo bokk sàngu mhm. te fekk sëyuñu si góor gi mën naa tëdd ci kaw ku jigéen ki mhm. te fekk awraam duggul ci biir njaaloowul de dëgg la ah. Ah. góor mën naa yéeg ci kaw jigéen tëdd ci kaw moo de ah te njaaloowuñu mhm. yow na fekk góor gi tëdd ci kawam mhm. après nga ne dañuy njaaloo wala ci néeg rek wala ñu tëju ci néeg bi nga ne dañuy njaaloo mbaa ñu bokk ab séer sàngoo nga ne dañuy njaaloo yow lislaam dalay caw danaan la ndax gis nga awra wi dugg ci biir nga ne déedéet dañ lay caw mais gis naa mu yéeg ci kawam ñu ne mais tëdd ci kaw ak njaaloo du benn Mm-hmm. njaaloo awra moo koy def si laal jigéen bàkkaar la mm-hmm. mais njaaloo beneen àtte la moo mm-hmm. tax kenn mënu la ko wax ci àddina lu dul ki njaaloo mooy ñëw ne man damaa njaaloo caw leen kon l'islam daal ko nit l'islam protégé na couvrir na nit ki ci façon bu ne sëñ bi deru doomu aadama Shuayb deru nit kenn waru ko yàq ci maali foro macha allah moo tax droit de l'homme dëgg mm. l'islam moo ko jàngale heure boo nii diw nii njaalookat la mm. te indi woo ñett ñu la accompagner ngeen wax ni yéen a gis awraam mu dugg. Hmm. dañ lay caw juróom-ñett fukki yaar. macha allah te loolu protéger nit rek a tax lislaam def ko.